doomu Sénégal bi waaye offre boobee waa Salernitana yóbbu woon bu ñu sukkandikoo ci Sky Sport waa Strasbourg dañoo gàntal li ñu xamal waa Salernitana moo di offre bii ngeen indi ngir jënd doomu Sénégal bi ndaw na lool waaye loole nag taxul waa Salernitana bàyyeeko Sky Sport nee na Salernitana dina defaat beneen offre ngir jël doomu Sénégal bi yóbbu ko foofee mu doxal gone gi ci boppam nag Salernitana gënalu ko ci fàttali waa Salernitana kañu njëkkoon bëgg moo dul yemb jamono ji nag ki ñu bëgg moo di Habibou Diallo nekk attaquant di football ca Strasbourg ca Ligue 1 bu France xibaar boobee Sky Sport moo ko xamle. ñu jugee ci Habibou jàlloo dem ca waa Paris ñoom nag Ligue 1 ba tey jii lay door waaye ñoom suba la ñuy football bu 19h jotee ñoom ñooy fekki Clermont waaye match boobee nag ñi may waaja lim duñu ca bokk muy doomu Sénégal bi di Idrissa Gana Gueye ak doomu Argentine bii di Mauro Icardi ñoom nag kay bi nga xam ne ñoo war a football ak moo suba Idrissa Gana Gueye nag sànq rek ci xibaar yi ñoo ngi leen doon wax ci moom ne moom mii kat soo moytuwul dina dund Ligue 1 bu compliqué maanaam Ligue 1 bu jafe ndax Christophe Galtier compté wul ca moom kon nag bu yeboo na jéem a wut beneen club ndax championnat bi ma ngay door suba te suba mat bi ci njëkk am ci waa Paris moom woowuñu ko kon war naa soppi xar kanam wut beneen club loolu moo gën ci moom waaye tamit yemul foofee ndax seen capacoli gii di Kylian match boobee li ko waral moo di addicteur yi mooy métti kon Kylian Mbappé suba du bokk ci match bi nga xam ne moo war a dox ci diggante Paris ak Clermont Paris nag mooy fekki Clermont match boobee 19h lay door ñu jugee ci waa Paris dem ca waa Chelsea ñoom nag siiwal nañu ne jënd nañu doomu Espagne bii di Cucurella gone gi ma nga woon ca Brighton jugee na fa nag officiel na dem na xaatim contrat wu juróom benni at ci club bii di Chelsea la ñu ko jëndee nag mi ngi toll ci 65 millions d'euros ak 8 millions yoo xam ne bonus la gi nag bu demee foofee Thomas Tuchel piston la koy def loo gone gi maanaam mën naa football latéral waaye Thomas Tuchel ku ko xam ku ne xam ne day football ak trois défenseurs ak quatre milieux de terrain ak yeneen trois attaquants ca kanam nga xamante ni gone gi mën nañ koo def les piston mu nekk ca wetu càmmoñ ga di jàppale gars ñi défensivement di leen jàppale offensivement ndax gone gi la muy def mën na ko Pep Guardiola nag moo ko njëkkoon bëgg waaye yëf yi sottewul gone gi Chelsea la mujj dem ñu jugee ci waa Chelsea dem ca waa Barcelone ñu doon présenté Robert Lewandowski présenté nañu ko jox ko numéro neuf bi nga xam ne moom la Memphis Depay doon sol waaye nag loolee président Barcelone ba ñëw na ci nee na nag numéro bi ñun waa club bi ñëw ko jël ci Memphis Depay jox ko Robert Lewandowski Memphis Depay joxewul numéro bi waaye club bi ci boppam moo jël numéro bi jox ko Robert Lewandowski journaliste yi ne ko loolee nag lu tax mu ne image su bi la ñuy sàmm ku xam ku xam Robert Lewandowski xam ne numéro la mos di sol nekk ca moom la doon sol ba mu nekkee tamit ca Bayern moom la doon sol équipe nationale tamit neuf la fa doon sol kon numéro neuf mooy numéro bi nga xam ne moom la Robert Lewandowski bëgg ñun nag suñ ko ko joxee club bi dina gën am jëmm nit ñi dinañu ko mën a gën a bàyyi xel ndax numéro neuf bi muy boot moo koy waral loolu moo tax ñu jël numéro neuf bi jox ko Robert Lewandowski ñu jugee ci waa Barcelone dem ca waa Borussia Mönchengladbach ñoom nag doomu France bi di Alassane Pléa yokku nañu contrat programme li ko waral moo di kat gone gi club yu mag nekk ca Europe dañu ko doon bàyyi xel te suñu naagu woon rek gone gi mën naa jóge ca club boobee loolee moo tax nag baral nañu jéego yi yokk contrat ba atum deux mille vingt cinq kon tëj nañu ko du jóge ca club boobee gone gi nag doomu France la bu mën la muy def club bii di Nice nekk ca France sax bëggoon na ko ba sori lool ca waxtaan ba jamono ji nag yokk na contrat ba atum deux mille vingt cinq ci club bii di baax kon ca Bundesliga ba lay des di doxal